salaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi yéen ñi ñu seetaan fii ci Sénégal Afrique ak yeneen i réew àdduna man Coumba Gawlo maa leen nuyu balaa dara di leen souhaiter une bonne heureuse leen ñaanal atum 2021 bi nga xamante ni moom la ñu dugg nekk atu jàmmoo atu xéwal atu naataange ndax gis ngeen ni génn nañu 2020 yi ak ay jafe-jafe yu bari ndax woppu ji nga xamante ni moo di coronavirus ñu ñëwit di dugg 2021 di ko ko doore muy lu metti lool waaye bu mu tax benn yoon kenn wàcce say loxo ne ñépp takku taxaw temm yokk ngëm gi yokk fit gi yokk pasteef gi te it wéy di respecter mesure barrière yi bu ko defee suñu boroom dinañu ci dimbali kon maa ngi ñaanal ñépp atum jàmm atum xéewal tey nag dama ñëw waxtaan ak yéen ak euh, naqar bu bëri euh, ci benn euh, mbir boo xamante ni nii lu ma soxal la loo xamante ni nii am naa beaucoup de tristesse ak difficulté wax ci waaye ma ne naa ci waxtaan ak yéen rek ndax boo dee artist nekk personnalité internationale nationale internationale àddina di la dégg baax na léeg-léeg bu mbir amee di la nar poussé nga war a def ab diir ab toog Euh, boo xamante ni nii da ngay deltu gannaaw tuuti dallu ci sa liggéey nga waxtaan ci ak say sopp nga waxtaan ci ak àddina nga waxtaan ci ak seen réew moo waral nag tey ma ñëw di waxtaan ak yéen di leen xamal daal ak naqar bu bari nii euh, lii di mbirum way moom dinaa ko xaw a teg tuuti euh, ci suuf ba ci kanam li ko waral nag mooy tawat rek ju ndaw joo xamante ni nii mu ngi ci sama baat te woykat moom baatam Euh, te gannaaw nag euh, docteur yi saytu nañ ko gis ni dama war a euh, toog ab diir daal bañ a way ndax li nga xamante ni nii moo ko waral tere na maa way ba mënumaa way teg ci it léeg-léeg sax mu tere maa wax kon dama war a ab diir rek toog ci langue way gi ma teg ko fee arrêté pour un moment xam naa nag dina jaaxal ñu bari bu ma ci waxee ndax suñu société Afrique moom dañuy waral ni wopp kenn du ko wax danga war di nëbbatu waaye man li ma gëm mooy suñu boroom moom moo jiitu ci lépp mooy nekk ci digg ba te moo mujj ci lépp teg ci boo amee ay fans am ay sopp am ay partenaire seq ak ñoom ay liggéey say sopp di la xaar di la séenu baax na lu mel nii bu amee ba tax laa empêché nga def sa liggéey bi tax nga mën a saafonte ak say fans nga toog wax ak ñoom ñoo xam ne ah ñun kat suñu artiste bi buñ ko gisul lii moo ko waral waaye du ne suñu artiste daa yàccaaral wala dafa toog wala dafa des gannaaw déedéet loolu waralu ko benn yoon dafa am raison bu valable boo xamante nit ñi rek moo ko waral te loolu it li ko waral mooy ay weer ci gannaaw dama amoon wopp ju ñuy wax occlusion intestinale maanaam samay butit fasu dafay faral di dal nga jékki-jékki say butit jaxasoo wala mu fasu ba tax ñu daal di may yóbbu urgence opéré ma dagg ci sama intestin bi euh, lu toll maanaam samay butit lu tolloog mètre ak lu teg ngir man maa sauver may sant nag suñu borom bu baax bi ma ci génnee waaye nag ba ma ci génnee yàlla dafa def euh, bi samay docteur diagnostiqué ni gis ni sama baat daal mënatu wax mi nga am jafe-jafe ñu gis ni raakool ba nga xamante ni nii moom lañ ma defaloon ca opération ba moo indi ay endommagement yoo xamante ni nii xaw a toog ab diir waaye maa ngi sant suñu borom bu baax euh, di dolliwaat di dellu ci euh, suñu borom xam ne lépp moom la bëgg ngeen dalal seen xel euh, yéen waa Sénégal ndax Sénégal moom ñépp ma fi bëgg ñépp ma fi jox cër Afrique noonu adduniyaa noonu ñu xam ne rek lu am yàlla la te maa ngi sant bu baax ndax bu ngeen dee xool loolu moo waral programme yi ma fi defoon yu mel ni Coumba Gawlo seen kër Coumba Gawlo chez vous jamono yépp euh, defuma ko te weer wu jot daan naa ko def muy rendez-vous yu am solo yu ma daan def ak yéen waaye ñàkk mën a euh, euh, way loo xamante ni nii lu ngeen mën a dégg la moo waral ma retiré wu ba loolu yépp defuma ko fexe naa nag may leen sama clip bi di borom ndaam ngir rek gën a saafonte gi yéen samay fans te ni ma ko defee ci loolu dinaa fexe def ko ci yeneen yeneen euh, vidéo ci yeneen activité ndax xam ngeen ni man Coumba Gawlo euh, bu way wéyee am naa yeneen activité yu bari yu may def ci mbirum jigéen ñi mbirum xale yi mbirum seen àq ak ay yelleefu doomu aadama yooyu yëpp dinañ ci mën a saafonte euh, pour rek ma mën a garder contact bi ak yéen ci sama ay plateforme YouTube Instagram Facebook ak yeneen ak yeneen yi activité di leen gërëm te di leen sant bu baax bala may jeexal nag damay dellu sant euh, euh, samay waajur commencé ci sant di sama yaay ndax jamono yi ma tëdd tawat yépp gis naa taxawaayam bu baax ci sama wet moom ak sama famille ma di leen gërëm gannaaw ba ma sant suñu borom bu baax di leen sant di gërëm it kilifa diine yi kilifa aada yi nga xam ne yépp ñoom ñoo ma doon ñaanal fi ñu ne di ma taxawu ma di leen gërëm ñoom tamit di leen sant bu baax di gërëm bu baax son excellence le président de la république Macky Sall monsieur le président jërëjëf ci sa taxawaay gis naa ko bu baax may gërëm les chirurgiens les médecins les infirmiers yi nga xamante ni nii yépp ñoom ñoo ma taxaw woon vraiment def ko seeni mbir sama tawat ji yépp maa ngi di gërëm te di leen sant di gërëmit sama xarit euh, Amadou jàlloo ci taxawaayam di gërëm sama sœur Mame Ndack Sy di gërëm honorable député Mously Diakhaté sama mag jooju moom it ci taxawaayam ci sama wet à tout instant ba jamono yi ma nekk euh, di gërëm sama staff ci seeni taxawaay ñoom ñépp ma di leen sant di leen gërëm xam naa ne sax dina jaaxal ñu bari ne waaw kii moom def na fi kilif vidéo bi dafa tawat mais loolu lépp pour won leen rek ne euh, jom la xëy na kuñ ko waxoon doo ko gëm ni vidéo booba sax ba ma koy def euh, sama wér-gi-yaram mayu ko waaye man li ma xam ci àdduna mooy jom ak it nit ki ngay prendre sur soi lu mu metti metti nga def li nga war a def boo paree nag nga soog a dem ci leneen loolu yëpp te ko woon bañ a def pour samay fans moo tax ma def ko di leen gërëm di leen sant di leen wax ni am na projet yu bari yu ma dencoon def ko dinaa ko génne jamono yi mu ay vidéo ay clip ak yeneen loolu yëpp rek pour saafonte gi yéen di sàkku ci yéen ñaan di leen gërëm di leen sant te dalal seen xel jërë ngeen jëf Je vais en quelques mots euh, essayer de traduire euh, euh, le message que je viens de dire en Wolof en français afin de permettre à nos amis qui ne comprennent pas notre langue de comprendre euh, la teneur de mon message. Mais avant cela, je voudrais vous présenter à vous qui nous regardez à travers le Sénégal, l'Afrique et dans le monde mes voeux les meilleurs. Mes meilleurs voeux de bonnes années 2021. Que cette année 2021 soit une année lumière pour vous, vos proches, vos parents et vos amis. Nous sommes sortis de avec beaucoup de difficultés à cause de la maladie à coronavirus et nous entamons aussi avec toujours cette pandémie qui continue de sévir. Mais ne baissez jamais les bras, continuez de garder la foi et continuez aussi de respecter les mesures barrières, car cela pourra nous de cette pandémie qu'est le coronavirus. Chers amis, chers fans, vous qui me regardez à travers le Sénégal et en Afrique et dans le monde, je disais tout à l'heure que c'est avec beaucoup de tristesse que je viens vous annoncer mon retrait pour un moment de la scène musicale dû à des problèmes de santé. Cela va vous étonner que j'en parle, puisque chez nous, en Afrique, il faut tout cacher. Mais je pense que non, il faut parler à ses fans, il faut parler aux populations afin qu'ils puissent comprendre. En fait, je me retire de la scène musicale pour un moment, puisque je suis en ce moment dans l'impossibilité de chanter, parfois même de parler. Il y a quelques mois de cela, j'ai été opérée d'une occlusion intestinale euh, euh, qui a euh, mener à ce que mon intestin soit amputé d'un mètre à quelques. Et il s'est trouvé que la sortie de cette maladie, je rends d'ailleurs beaucoup grâce à Dieu de m'en être sortie, il s'est trouvé qu'à la sortie euh, de cette intervention, les médecins ont diagnostiqué que le tube qui a été euh, mis dans ma gorge, parce que j'ai été intubée, et ce tube a créé des dommages au niveau de mes cordes vocales, m'empêchant de chanter pour un bon moment, euh, parfois même de parler. Au vu de cela, euh, je viens aujourd'hui vous informer que pour un moment, je vais me retirer, retirer de la musique, mais malgré tout, nous allons rester en contact puisque vous avez vu récemment que je vous ai offert mon dernier clip vidéo Boromdam et à travers mes autres actions, euh, euh, notamment dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, l'éducation des enfants, le respect scrupuleux des droits humains, je pourrai continuer à garder le contact avec vous et à continuer à garder cette flamme et véhiculer des messages forts. Et nous pourrons bien sûr continuer à nous retrouver, à garder le contact à travers mes plateformes telles que Facebook, Instagram, Twitter et euh, ma chaîne YouTube, entre autres. Et d'ailleurs, si vous le constatez, euh, mon programme euh, dénommé Kumbagaolo Senker, Kumbagaolo chez vous, euh, ça fait un bon moment que je n'ai pas pu vous le présenter. sachez que la raison est toute simple, c'est dû à mon état actuel. Et je rends grâce à Dieu, je reste convaincu que très bientôt, nous allons nous retrouver. Je vous demande de continuer à prier pour moi. Je ne saurais terminer après avoir rendu grâce à Dieu euh, sans remercier ma famille, à commencer par ma mère qui n'a ménagé aucun effort pendant toute la période où j'ai été malade et qui a continué à m'accompagner pendant toute cette dure épreuve. Je voudrais aussi remercier les guides religieux, les guides spirituels qui ont beaucoup prié pour moi et qui continuent de prier pour moi. Remercier son Excellence le président Macky d'avoir été à mes côtés. Monsieur le Président, merci d'avoir été à mes côtés à chaque instant de cette dure épreuve. Je voudrais aussi remercier ma sœur Mamdaxi, ma grande sœur, l'honorable député Mousti les médecins, les chirurgiens, les infirmiers qui ont été à mes côtés et qui continuent d'être à mes côtés. Mon ami fidèle de tous les jours, Amadou Kandiallo, mon grand frère, mon chef d'orchestre Laïdiane, ainsi que tous mes musiciens. Et enfin, mon staff pour le travail fabuleux qu'ils continuent de faire, qu'ils ont eu à faire et qu'ils continuent de faire pendant toute cette période. Merci à vous tous. Je vous remercie. Que Dieu protège le Sénégal. Je vous demande de prier pour moi. Je prie pour vous. Que Dieu protège le Sénégal. À très bientôt dans d'autres aventures, dans d'autres activités avec moi-même Mbadawlo, votre artiste. Merci beaucoup.